La parole est à notre collègue Cheikh Abdou Mbaké. Malik Diop se président Assemblée nationale maa ngi lay nuyu monsieur le premier ministre maa ngi lay nuyu du nuyu sama collègue député yi di nuyu ministre yi nga àndal man Cheikh Abdou Bara Dolly nekk député représentant du peuple bu Touba maa jël kaddu ci bis bi nga xamante ni am na muy bis bu am solo ñu war ko bàyyi xel bokk ci membre coalition wàllu nekk membre fondateur bokk ci comme li nga xam mooy groupe parlementaire liberté et démocratie changement monsieur le premier ministre ginnaaw bi nga xamante ni jot nañu kayit yi nga xamante suñu collègue député yi yi bokk ci yeew yi yónnee nañ ko ñu ñu jot ko te joxuñu ko bu ñu ko liiree li ñu si njëkk déplore te ñaawlu ko mooy manque concentration bi am suñu diggante Yewwi ak Wallu parce que jàpp naa ni déglu leen ma rek man li may wax soxlu ma ku ma tàcc mbir boo si bokkee dan laa war a yëgal mbir boo si bokkee dan laa war a xamal rawat na nga am expérience boo xamante nii kenn nattalu ko fii ñun boolewuñu si bokkuñ signature même noo inscrits yi bokkuñu si yëguñu leen ko te jàpp naa ni ànd balaa neex naw la da si am bi ma ko gisee ma ñëw ba si ñoom ñii ma laaj la ne lu ngeen bëgg def ñu ne ma ah li ñu bëgg def daal xamuñu ko man la ma war def def naa ko comme man na xawuma te bu ma xamul damay maandu man pariwuma pour wate ko damay maandu ci mbir mi ndax xawma lu mu doon monsieur le premier ministre jàpp naa ne am na lu bari bari yoo xam war nañu koo laaj fii bi ñuy dem ñun nga xam dañuy wat li nga xamante ne mooy Touba di wax dañoo waxoon ni bu ñu jotee nguur gi muy am majorité loi nguur jigéen dañ ko indi assemblée indee gun ko mu modification code électoral dañ ko indi indee gun ko li nga xamante ni maanaam mooy euh, modification code électoral pour Khalifa Sall ak Karim Wade mën a bokk dañ ko indi indeeguñ ko li nga xamante mooy dem révision code euh, code électoral code kii bi code euh, modification code pénal bi dañ koy def parce que suñu mbokk yi nekk prison yi ñu mën leen a dindi indeeguñ ko ak li nga xam moo jëm ci enquête parlementaire yi loolu lépp defuñu si dara jàpp naa ne jamono yi ñu toll nii barki démb ñu wote ci biir bi parce que man li tax mu wote bu doon benn dërëm moo jëm Touba dinaa ko wote ngir Touba man Touba ñoo ngi fi indi kenn indiwu fi man Serigne Touba laa gëm ab keneen lépp loo xamante ni ñu ngi koy wat Sénégal bis Touba gis sama bopp du nga ko wat bu ñu doon xañ Sénégal gépp di jox Touba ma wate Touba man Touba ma gënal Sénégal moom ma gënal sama jëm loolu moo tax wat li may wat mënu ma wate nag ñu jox la délai boo xam ne pendant six mois ñoom li ñuy def bu fekkoon tàggu nañu fukki député ak juróom ñaar mën nañu ko def te buñ ko xasee def dépp ñu ko defaat mais ñun may nañ la del 6 mois bu fekkee leen bëgg ak li ñu waxoon defoo ko régler problème yi nga xamante mooy li am affaire corruption bi affaire yi nga xam moo jëm si mbarum ah, mbënn mi yooyu defoo ko su boobaa ñun ñi nga xam ñoo bokk si coalition bii wàllu nekk liberté démocrate am nañ sañ-sañu dugal motion de censure pour war askan ñu leen lii lan waxoon may nañ ko temps bi ko waxtaan ñu sa war a waxal mais comme waxtu ñun nag wax dëgg yàlla jox nañ ndax man mii di waxee bi ma jàppee kenn defuluma point de presse kenn seetsiwu ma bin ma saagaa kenn attiwu ma fii lan ma saaga ñoom ñu ñëpp ñu bokk taxaw kon jàpp naa ne ñaar ñaari député wuru fi am man Cheikh Abdou Bara sëpp Sëñ Touba nag buñ ma saagaa kenn waxul buñ ma jàppee kenn waxul buñ saagaa kenn kenn wax loolu yaakaar naa jaarul la parole est à notre collègue